lu ñu nekkal ci plateau bi euh, xam nga nag euh, Papa Thione Balago Seck euh, li nga xam ne mooy feebar bi ko yóbbu àdduna coronavirus la donc Covid 19 moo ko daloon gis nga bi mu ko dalee yàggut ak moom mu daal di koy yóbbu alaaxira donc ñuy wax rek nit ñi nañu gën a moytuwaat gën a defaat li nga xam ne moom la docteur yi digle. Euh, mooy takk masque yi raxas loxo yi di respecter distance yi looloo waral sax nag euh, kii di suñu yaay ajaratu jaaga moom génnul dafa lelu loolu lépp ngir ñu mën a gën a moytu li nga xamante ni si moom moo di jàngoro bi donc euh, Papa Thione Balago Seck lii di coronavirus moo ko daloon. Mm-hmm. yàggul sax ak moom nii gis nga la ko daal di def kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ñuy fàttali rek nit ñi ne amul ñetteelu fan amul juróom-ñetteelu fan. lépp lañ koy yamale ci bés bi ngeen euh, bàyyi ci xel bu baax a baax a baax na gars yi di respecté waat li nga xam ne moo di mesure barrière yi nga xam ni euh, docteur yi wax nañu ko mm-hmm. te it nag ñi mën a ñàkku ji nañu dem ñàkku ji euh, te nag ñu saxalaat bu baax a baax te moytuwaat tamit mbooloo mi ak dajaloo bi